أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون sadaqallaahu al-aziim wa ballax rasuulul karim wa naxnu ala ma qaala rabbuna wa mawlaana min ash-shaahidiin allahumma ij'al al-qur'aana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyaamati shafi'a wa ala siraati nuura wa ila al-jannati rafiqa wa baynana wa bayna sitran wa hijaaba wa ila al-khayraati kullihaa daliilan wa imaama bi fadlika wa juudika wa karamika yaa karamal akramiin mbokk yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot donc ngi xujuraat ñoo ngi toll ci aaya fukk ak juróom muy aaya quinze fi borom bi waxee lan mooy imaan mu jiital baatu innama ñii muy bëgg a wax rek ñooy al muminuun innama al muminuun ñan allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu gëm nañ yàlla gëm nañ yonent bi te duñ am lenn lu ñuy sikki sàkk ci lu yàlla indi mbaalu bi indi duñ am lenn ci lu ñuy sikki sàkk ci lu yàlla indi mbaalu bi indi tabarakallahu loolu la ci jiitu mooy alquranul karim ak ya aju ci moom yépp alquranul karim bu ki gëm yàlla du sikki sàkk ci jenn laaya mukk li dal pénc mi tey nga xam ne dañuy sikk sàkk ci ndax peine de mort daa war a am ak wërta am loolu duñ ci sikki sàkk mukk duñ ci sikki sàkk duñ sikki sàkk ci lu alxuraan wax waaw xanaa déggin wom cee wax ku rey te tey ko te bokki kañ rey baalu la bu la baale nag daa am luñ lay teg ndàmpaay waaw ala kulli xaal su ma lam yartaabu duñ sikki sàkk mel ni as-sadiq aw bakar kon bu alxuraan jo weesoo sunna si bi sallallahu alayhi wa boo ca noppee al imaanu muy gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm alaaxira gëm dogal bu neex ak bu naqari loolu nag li koy may nit mooy connexion lay am silatul insaani connexion lay am maanaam nit day jokkook ñaar day jokkook àdduna jokkook yàlla nit day jokkoog àdduna jokkoog yàlla waaw jokkook àdduna mooy li téléphone yi def tey nga xam ne am mën nga am crédit mën nga am réseau mën ngaa am charge waaye amoo connexion boo amee crédit am charge am réseau am connexion waaw kay léegi day bokk nga kon mu ngoog connexion boobu nit di am ak àdduna nag ñëwoon nañ ci ci bind bi weesu ba jeexaloon ko ba dugg ci connexion diggante nit ki ak yàlla silatul insaani billaahi fi fil islaam connexion boobu it dafa am lu am solo lu muy def ci ruux ma waxoon ci bind bi weesu ne yàlla bu mu nu dal di dox ci penc mi ndekete coupé nañ la waaw di dox ci penc mi ndekete coupé nañ la baas de données yi nga xam ne mooy am ci téléphone nga di ko def pour connecter wala nga nekk fu am wifi nga connecté ñu dugal la code bi loolu suñu diggante ak suñu borom la waaw loo am solo la mu ngoog eh, sunu mbokkum daara sëriñ sëy dana faral di jaar ci yu mel noonu ci ne tuuru yàlla yeeg diggante mu nag nit ñi diggante nit ñi ak yàlla diggante yàlla ak nit ñi ak li leen di jokkale ak seen borom yàlla na ko yàlla sàmm ñu ñëwoon ci jokkaloo googu nag fa muy tàmbalee mooy al imaanu jokkaloo gi diggante nit ki ak jaam bi fi muy tàmbalee mooy al imaanu maanaam mu mu gëm ne kooku mu jokkalool mi ngi fi te jokkaloog moom mooy tax nga am euh, connexion ñàkk a moom dalay xañ connexion dëkk bi opérateur yi ci nekk ku ci nekk jokkoog ñooñu mooy tax nga am bu dee courant daa am fooy dem ñu jokkale la courant bi bu dee ndox daa am fooy dem jokkale la ak ndox mi bu dee téléphone daa am fooy dem jokkale la ak téléphone bi ñett yooyu ak yeneen yi bu doon bitim réew danga naan nga dem ñu jokkale la ak gaz bi incha allah tey bu réew mi demee ba dem ba ci kanam euh, directeur Aliou Lo mële ca lob bopp maam jaara yal na ko yàlla sàmm te soqali barab ba barab boobu bu demoon tey ba toll ci branché ay ay ay tuyau yu jëm ci dëkk bi yépp su boobaa dootoo dem ñu lay sarcel gaz da ngay dem abone rek su ko defee bu weer dee sa facture ñëw yàlla nañ ci àgg waaw yàlla nañ ci àgg xam naa bu sunu gaz bële ñu nekk di defar ñëwee mën naa am nu àgg foofu nga xam ne réew mi yëpp kenn dootu ngàbb gaz di dem di chargé ndeysaan facture ngay am comme ni ngay amee euh, courant ndox waaye loolu nit daf koy am digganteem ak boroomam la ko koy may nag mooy al imaanu billah al imaanu billah bu amee dafay defar sulukul insaan nit bu xasee am jokkalook yàlla dootul xamadi dootul réew dootul ñàkk teggin dootul ñàkk aajo mukk dootul nay waaw dootul soxor dootul añaan lu tax dafa am léegi comme jokkalool muy allahu tabaraka wa moo tax ñi nga xam ne xam nañu la xew ku ci dugg ci jàkka bala lañ bala lay wax fayal sa téléphone bi nga fay ko loolu ñëwoon na ci bin bi weesu ñëwoon na ci tam zikrullah ginnaaw bi nga gëmee yàlla zikrullah yi daa war a ñëw luy zikrullah yi mooy di bàkk yàlla subhanahu wa ndax loolu dafa mën a jur alxayaatu arruxiya day dundal uh, ruux waaye day dundal bakkan day dindi njàqare day dindi stress dafa naan lu ñu koy waxee mooy ak jaaxle yooyu yëpp moo gën a nekk maanaam zikrulaay moo gën a doon noon ci yooyu dindi ko dafa yomb lool moom daf koo yomb waaw zikrullahi moo tax borom bi bi mu nu fi indee te xam ne loolu sunu sunu médicament la dafa nuy faj mu ne allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dikrillah mu ne ñi nga xam ne gëm nañ ko zikrullah day dalal seen xel zikrullah day dalal seen xol te xel mu dala xol bu dal baax na ci nit te zikrullahi daf koy def nga ne ko ha mu ne alaa bi zikrillahi tatma innul qulub alaa dama ne bi zikrillahi tatma innul qulub zikrullahi rek mooy dalal xel waaw zikrullahi mooy dalal xel mu ne xanaa xamuleen ni zikrullahi mooy dalal xel mu tax lu ama am solo la nit ki di zikr nit ki di zikr borom subhaanahu wa taala ci wàllu zikr ma nga wax fazkuruni azkurukum waaw fazkuruni azkurukum fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen yàlla nag du fàtte waaye waxin la bàyyi leen ma xel ma bàyyi leen xel suuraale leen ma ma suuraale leen bokk boole leen ma ma bokk <laughs> allahu akbar washkuru lii te ngeen sant ma ci li ma leen defal wala takfuroon waaye bu leen goree di bu leen goree di bu leen baadoolo waaw li ma leen defal jar na sant bi laa yaa ilaahi jar na sant la tubaarkàlla sant rek lu xew rek nu sant loolu yàlla nga ko ci albaqara ay téeméeri juróom fukk ak ñaar waxaat na it ne yaa ayyuhal lazina amanu uskurullaha zikran kathira wa sabbixuhu bukratan wa asila huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatu li yuxrijakum min adulumati ila nuur wa kaana wa kaana bil muminina rahima sadaqallahu l-aziim mbokk yi maa ngi suuratul xujuraat maa ngi ci aaya 15 yaa li innamal mu'minuun allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu maa ngi ci thumma lam yartabu nga bañ a sikki sàkka ci jokkaloo gi nga war a am sa diggante ak sa borom maa ngi toll ci ñaarlu tomb bi ci jokkaloo gi mooy az-zikr sunu borom daa wax ci alquran te suratul ahzab aaya 41 jàpp 43 yaa li sina amanu i yéen ñi gëm yéen ñi am connexion yaa ay lusina amunu yéen ñi connecté jëmm ji sa jëmm ji mooy appareil bi jëmm ji mooy appareil bi gëm yàlla gi mooy jokkaloo gi mooy connexion bi mu ne yéen ñi nga xam ne am ngeen connexion uskurullaha bàkk leen yàlla wikran kathira na bari uskuru la zikran kathira na bari fu mu yem kenn xamu ko na bari rek na bari waaw wa sabbihuhu bukratan wa asila de leen ko bàkk su ngeen xëyee bu ngoonee de leen ko bàkk allahu akbar muy subhaana yi na bari ci suba gi subhaana yi bari ci ngoon gi wa sabbihuhu bàkk leen ko bukratan wa asila moom yàlla day yusalli aleykum san moom yàlla yu salli aleykum yàlla mi ngi mi ngi julli ci yéen yàlla mi ngi leen di xéewal bu malaykatuhu yaa ngi leen di ñaanal mbokk yi taxaw leen ci ñaari baat yi wala si yu salli aleykum wa ndekete am na lu nit di def yàlla di ko xéewal malaaka yi di ko ñaanal li koy jural nit zikkër ca la bokk zikkër su bari li ko jural nit sàbbaal yàlla ci suba gi ca la bokk li ko jural nit sàbbaal yàlla gi ci ngoon gi ca la bokk waaw nga ne ko salaatullahi ala ibaadihi wal malaayika lu muy jëriñ nit lan la jullig yàlla wala boog ñaanug yàlla ci nit ak malaaka yi koy ñaanal wala boog xéewalug yàlla ak malaaka yi ñaan xéewal gi lu mu jural nit mu ne lu yuxrijakum min adulumaat ila nuur loolu mooy dindi lëndëm lëndëm yi nekk ci nit loolu mooy dindi lëndëm lëndëm yi nit nekk loolu mooy dindi crise crise morale crise des valeurs crise autorité crise économie crise politique crise sociale crise environnementale waaw yooyu baati crise moo tax bëri na liste bi damaa lim lii rek moo tax yàlla yàlla def baat bi pluriel professeur ji bi maanaam mu mu nekk jamo mu nekk mbooloo mina zulumaat ay lëndëm lëndëm yu baree bari fu mu leen jëme ila nuur développement moom genn rekk la tabarkalla wa kaana bil muminina rahima yàlla ñi am connexion ñépp la yërëm wa kaana bil muminina rahima yàlla ñi am connexion ñépp la yërëm cest à ñi ko gëm nga waxam ne ci alxuraan ci ahzaab ba tey wa zakirin la kathiran wa zakirat ahaddallahu lahu maghfira wa ajran azima ahzab mu ne góor ñooy zikkar yàlla lu bari ak jigéen ñooy zikkar yàlla lu bari yàlla dencal na leen maghfira sutura dencal na leen maghfira njëggal dencal na leen maghfira mbaa baal wa ajran azima ak pay gu yàlla nañ ko muurloo ngeen murloo ko mu ngoog alxuraan kon wax na kon zikr gëm yàlla waaw di zikr mu leeral nag ne ñi dul zikr ñu dil ñi dul zikr mooy ñi nga xam ne amuñu connexion waaw mënuñoo jëfandikoo yëf yi ndax ñoom bokkuñu wala buñ bokkee noonu ko Ibrahima Xaliiloo di jàngale coupé nañ leen yàlla na ko yàlla yokk wér déggal wa man ya'shu an dikri rahman nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qarin yàlla nee <laughs> ku zikkarut sa kër fees ki jinne ku zikkarut seytaane man la fa huwa lahu qarin mu nekk sa sa xarit nekk sa àndandoo ku zikkarut allahu akbar mu ne seytaane ñam àndal nag benn liggéey lañ am wa innahum la yudilluunahum ani sabil benn liggéey lañ am mooy wàcce leen yoon wi wa yaxsabuuna annahum muhtadun teewul ñoom ña nga defe ne ñu ci njub allahu akbar yàlla nee na ku zikkarul loolu moo lay dal seytaane moo lay jële fi nga nekk te nga defan yaa ngi fa ba léegi wa yaxsabuuna annahum muhtadun baat yu jara taxaw a ngi nii mbokk yi ci silatul insa insaani billaahi subhanahu wa taala nit yàlla nee na ki dul zikkër ki dul zikkër seytaane jël na ko moo ki gaayam ndax ñu sànk leen ba noppi ñoom ñu defe ne sànk wuñu nga xam ne boo ñëwoon di leen jéem a yeex ak lijjanti ñoom ñu lay waar seetaane ngand seetaane rekk kay ngand jàpp nit ba boo ñëwoon naan ko nanga def yow daf lay waar ci indi la moom fi nekk te ndekete fi mu nekk baaxul fa nekkoon la ndax zikkër leneen la zikkër ak wird leneen lañu pénc mi nag léeg-léeg zikkaral nangam pour am nangam dafa ëpp ci ñoom zikkër pour am ngërëmu suñu borom walla zikkër ngir mucc ci seytaane ala kulli xaal li yudillahum an issabil wa yaxsabuuna annahum muhtadun seetaane sànk leen ba noppi ñu defee ne sànk wuñu ba jàpp ne nit ñee sànku waaw ba jàpp ne nit ñee sànku am na ñu seetaane sànk ñu jàpp ne nit ñee sànku ndekete ñoom ñoo sànku wa yaxsabuuna annahum muhtadun loolu nag ku yàlla baaxiwul danga ko yeex a xam bi nga koy xam wees hmm? dugg ci train bi fu ngeen jëm Saint-Louis dem ba Thiès seytaane duweer train ba teg ko ci raayub gengi new gaa yi nag ñoom ne ci biir train bi dara dara génnewu leen ilaa ngi new wa min ngi new ah ilaa ilaa xaay wa min xaay ilaa train ba dem na te ñoom Saint-Louis lañ jëm ay bala ñoo jubbanti ba jël siwaat ba dogaat yoonu Saint-Louis kenn xam lu mu doon waaw li ñu tuddee tey péage boo ko jëlee ñoom ñoom jong péage boo ko jëlee am na foofu boo ca xasee dugg bala ngaa génn cettt boo rombee péage bu Thiès bu Thiès bi deuxième ba ba tiim tali bi jëm kër Madaaro waaw te war na wàcc Thiès bala nga génn dangaa dem xombal mënoo demi mënoo reculer moom dangay dem ba xombal rek nga génn te da nga fay jëlaat ko fayaat door a mën a seetetet <laughs> moo tax yooyu danga ci nekk di yëg-yëg-yëg yoo xam ne kenn mësu koo gis suñ waxtaanoo maag Sëriñ Baaba Lemin fële ca kaw Kaolack yàlla na ko yàlla yokk wér waaw ca sunu waxtaan wa ca football cee te te mu ne ma lii de moom tubaarkàlla waaye kon ku bàyyi si zikr seytaane jël la ndekete kon zikr ngànnaay la ay anti missile la su fekkee noonu la missile seytaane yi waaw ba nga mucc ci waaw alxuraan mi ngi wax aw gaay ci beneen façon di leen tere du mooyu zikr du mooyu zikr mu ne wala takunu kalladina nasu llah fa ansaahum anfusahum ulaykum alfasiquun cëy yàlla mu ne bu leen mel ni ñama xam bu leen mel ni ñama xam bu leen mel ni ñoom oyombente ñoo xam mu ne ñooy ña nga xam ne dañoo fàtte yàlla duñ zikr mooy dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte loo leen seen bopp ah waaw waaw dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte loo seen bopp ñàkk zikr day tax yàlla fàtte loo la sa bopp ko defee nga xeeb sa bopp réere sa bopp réere foo bokk réere koo doon réere nekk su ko defee yow existé too daanaka yàlla fàttaloo la sa bopp ulaayika ñi yàlla fàttaloo seen bopp bañ fàtte seen bopp humul faasixuuna ñooy ñooy ñooy faasixuuna yi ñooy saay-saay si mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot suratul xujuraat aya 15 waaw summa lam yartaabu summa lam yartaabu ba tey ci zikr la sunu borom nekk nee na alam yaani lillazina amanu an taxtaa xulubum bi zikrillah wala li zikrillah yàlla nee na xanaa jot na nag léegi ndeysaan allahu akbar yàlla mu ne xanaa léegi nag jot na lu jot mooy seen xol yi nangoo zikr waaw jot na kay jot na ibnu abbas nee na bi bi ñu ñëwee bi ñu gàddaayee ak bi leen ko yonent bi leen ko alxuraan waxee diir bu gàtt la diir bu gàtt waaw ndax dañoo ñëw almadina jàpp ne noflaay am na nag léegi mbugal woon ca màkk jeex na ñu daal di toog nag sunu borom ne ah jóg jotaguta jóg jotaguta cëy waaw yenn toog yeek yenn garam place yeeg yenn nelaw yeek waaye waaye yeew jot na nag an taxsa xulubum li dikrillah wa ma nazala min al waaw te jël programme alxuraan jiit wala yakunu kalladina utul kitaaba min qablu bu leen mel ni ña amoon téere démb allahu akbar bu leen mel ni ahlul kitaab ñoom fa taala alimul amad toogaay ba dafa yàgg fa xasat xuluubuhum seen xol ya wow toogaay ba ñàkk a zikr dafa yàgg danoo toog lu yàgg zikrunu seen xol ya yàqu hmm? waaw waaw gis nga sun kër yi bu ci amee kër goo xam ne gii am nay at kenn dëkku ca xasat xulubuhum ja da la koy jàngal mooy kër ga day mu jàgg ku fa bëgg dëkk da ci def lu bari door faa mën a dëkk hmm? waaw waaw ñàkk a nun lay def mooy mooy kër gu kenn dëkkut yonent bi na ko ci ci addis kër gu xol boo xam ne borom du jàngal xuraan moo kër gu ràppayam kër gu kenn dëkkut te kër fi ne bu amee diir kenn dëkku fa jinn yi commencé faa dëkk waaw waaw laaj ko imaam Saliou Ngom ci jumaay <laughs> eh, yi jëppal di jàkkaarloo commissariat bi la ko yàlla yokk wér pour jeexal ci tomb yooyu nga xam ne mooy li ajoo ci zikr aqimis salaati li duluki shams ila xasaqi leyl wa quraan al inna quraan al kaana mashhuda wa min a leyli fa tahajjat bi naafila ndeysaan naafilatan lak asa an yabaasaka rabbuka maqaaman mahmuuda wa qul rabbi adxilni mudxala sidq wa axrijni muxraja sidq wajcal lii min ladunka sultaanan nasira ca Israël la ko yàlla wax aya 78 sunu borom nee na aqimi salaati li duluki shams loolu ci waxtu julli la waxtu julli aqimi salaata li dulooki shams luy dulooki shams boo ko laajee ñoom imam buso ca jumaay Tuubaa ja wala sëriñ fàllu bu sëriñ abdul xaadir wala nga dem fasture laaj ko xaaji abdul aziz yàlla ko yàlla yokku waaw wala nga dem euh, Tuubaa laaj ko euh, sunu mbokk ma sëriñ Mbàkke Ahmed Dem walla nga ñëw fii ci Touba laaj ko fii ci Dakar Dakar ngeen baal ma laaj ko sunu mbokkum daara mu tudd Xaadimu Rasul Guèye walla le professeur le grand professeur <laughs> Hadj Rawhan le grand professeur Hadj Rawhane waaw boo ko laajee ne luy dulloo ko Shams ñoom ñii ma ma tudd dañuy liggéey ci xam waxtu tusbaar kañ la dulloo ko Shams ñoom dañuy liggéey ci xam waxtu tusbaar kañ la ñoom nee nañu ak borom xam-xam bi ak alayhi salaatu salaam jant bi bu génnee ci sa kanam daf lay wut si bu la wutsee sa ker gi nekk sa ginnaaw ker gi daf lay wutsi buñ tasee ñoom ñaar jant bi day nekk sa digg bopp bi sa ker gi nekk sa digg tànk yi jant bi commencé di la daw maam jëm saw sa ker gi daal di moom jëm penku waaw bu sa ker gi jëmee penku ba génne tànk rek yëgal ne dulóoku shamsi jot na waaw dulóoku shamsi jot na nga gis ne kon loolu di waxtu julli ci tisbaar lu ama am solo la tey fi ne ci dakaar treize heures dix-huit boo ko laajee ñi ma doon wax ni bu treize heures dix-huit jotee dulóoku shamsi jot na Dakar treize heures dix-huit war nañoo noddu tisbaar treize heures dix-huit buñ ca tegee dix minutes defe naa mooy nekk treize heures vingt-huit ñu julli tisbaar waaw ñu julli tisbaar loolu la sunu borom di wax fii ne aqimi salaata daal ci teg lii du loo kisam si daal di joxe heure heure bi ñuy julli tisbaar treize heures dix-huit ji nag wëral ci àdduna si yépp pépp fu ñuy waxee xam-xamu xam-xamu waxtu julli bu dul dix-huit di dix-neuf mbaawee nag waaye quatorze heures moom du ci àgg mukk ma wax la ko tey waxuma laa quatorze heures et quart wëral nag ci ñii ma doon junj léegi ak xam-xam yi dugal internet dugal ligue ligue islamique mondiale waaw dugal umul xuraa dugal euh, azan waaw dugal muslim pro fu la neex dugal fu la neex dugal loolu lu jar bàyyi xel la aqimi salaata li duluki shams moo tax julli su jotut boo ko defee du sotti bu jotee ba noppi nga door koo def du sotti loolu waa kër docteur xam nañ ci dara waaw ñoom ab euh, monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr <laughs> xam nañ ci dara mooy lii nuy defloo ci feebar bi bu nu bàyyee ba mu dal nu door di ko def du jariñ dara nan koy def avant mu nuy dal waaw loolu mooy def ko ca waxtu wa bantal sa baaram wenn waxtu jullee ngoog ilaa xasaqi weneen waxtu jullee ngoog ilaa xasaxi layli weneen waxtu jullee ngoog mooy waxtu lëndëm ci tàmbali guddi gi kon foofu yaa ngi fi boole timis ak gee ilaa xasaqi layli timis gee timis bu ñu nee jant bi sona timis jot na bu ñu nee jant bi sona timis jot na waaw nga xam ne dakaar tey mën nañoo wax ne dix-neuf heures vingt et une minutes timis jot na loolu tam boo dégloo météo heure bi mu wax ne ci la jant bi so léeg-léeg ñun ci suñ jàkk ñu teg ci sept minutes door julli waaw te set minutes yi timis daanaka muxtaar maa ngay jeex waaw kon bu dix-neuf heures vingt et une minutes jotee xasaxi layli tàbbi na ilaa xasaxi layli waaw gee noonu waaw gee noonu boo ca tegee ñeenti daraja julli jot julli timis julli gee waaw dégg mu ne nag wa quraanal fajri weneen waxtoo ngoog quraanal fajri muy jullik fajar léegi nag foofu moom inna quraanal fajri kaana mashhuda waxu ko ci tisbaar waxu ko ci tàkkusaan waxu ko ci timis waxu ko ci gee ca fajar la ko wax inna quraanal fajri kaana mashhuda nee na alquraani fajar bu fekkee ilimaan talañu ko talañ julli ga maanaam su wax julli fajar muy jàng inaa àcce naakal wala lii laa fi Quraysh <laughs> xanaa dafa jël aw saar ne ca saar wa saar wa gudd njàng ma neex te yàgg malaaka yi fi fanaan dañ koy fekke yii xëy si dañ koy fekke malaaka yi fi fanaan bu ñu demee ca seen morom ne la ah, diw de dañ koo bàyyi muy julli ña fa fanaan ne ah, ñun de dañ ñëwee itam dañ ko fekk muy julli ñu ne kon de jullikat la kon de jullikat la mu tax 24 décembre 31 bu ñëwee nit di ca fo xamul li xew ndax ki ciy fo po moomu kaana mashhuda sa malaakay daaw yi bu ñu ñibbi dañ lay bàyyi ngay fo yu ren yi buy ñëw fekk la ngay fo ñu ne diw at mi yëpp def koo fo <laughs> ak wóor di ak wóor a di boo tax ab jullit ci 24 décembre ak 31 ëpp naa def de déglu rek fii suñu borom daf ne <laughs> daf ne wa quraan al fajri inna quraan al fajri kaana mashhuda luy kaana mashhuda mooy malaaka yi dañuy wuutante malaaka yi fanaan du bokk ak yiy yendu yi yendu si dañuy ñëw ba noppi yiy fanaan door a ñibbi fii ci sunu Euh, rajo bi directeur dafa am ñoo xam ne ñoo yoru sécurité bi Baye Omar yàlla na ko yàlla boobu balaa ki fi fanaan di wàcc ki yendu si day ñëw antenne bi tam ki fi fanaan balaa dem ki wa day ñëw malaaka yi ñi nga xam ne ñoo yendoog yow bala ñoo dem ñi fanaan ak yow kon bala ñoo dem ñi yendoog yow dañoo ñëw su fekkee yaa ngi ci julli ci waxtu fajar ca ca waxtu wa njàng ma neex te yàgg malaaka yi fanaan ak yow bala ñoo dem ñu ngi la fekk ñu ngi la bàyyi ngay jàng malaaka yi ñëw ñu ngi la fekk ngay jàng ñu ne kon kii moom moom kii de ci ci njàng la dëkk te nag loolooy li ma ne bu dee ci at mi malaaka yi nekk ak yow ci at mi di ñibbi bàyyi la ngay fa malaaka yi nekk ak yow ci at mi fekk la ngay fo malaaka ni kii moom ci at mi yëpp daf koo fo ñu bindal la ni diw at mi yëpp daf koo fo mbokk yu fo benn bis jëru ko di <laughs> fo bis di jëru ko <laughs> waaw la paaba ca quartier sàngam mboxoon gone ya seen kaset bi yàq na yàq na sama feet gi waaw yàlla nañu yàlla defal lii ndeysaan amin wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lakk mu ne bu guddee góor ba am dara allahu akbar fatahajjad bihi naafilatan lak su guddee góorgóorlu ba am dara hmm? waaw waaw boo amee dara tuuti ca guddi ga loolu heure supplémentaire la loolu heure supplémentaire luñ lay yokkal la ndax julli guddi tabarkalla jamono yi taxi di am Sénégal yal na yàlla yërëm taxi ya ndeysaan waaw taxi taxi yi am kontóor ndeysaan yal na yàlla yërëm taxi waaye te ñu jël si waat neex na lool ndax bu fi ñëwaatoon am na taxi yoo xam ne ngeen baal ma yéen yor taxi yooyu <laughs> boo xam ne boo duggee da ngay toog rek bëgg a wàcc daal di waaye <laughs> ngeen baal ma yi am na taxi yoo xam ne la sëriñ si yax waxoon rek waaw ñànkaroog taxi waaye dégg la ci sëriñ Cheikh daj waaw rahmatullahi alayhi radi anhu nee na mujj na mu ne borom taxi mu ne ko kaay puus ma mu ne ah nee na mujj mu ne ko kaay téyel ma fii ma taal héetéetéet xor xor dab bu waaye daal euh, taxi ba muy taxi bu guddee bu tëralee compteur double tarif lay def waaw booy fay ci bëccëg bi trois mille francs six mille ngay fay ci guddi gi waaye léegi taxi ci dakaar moom chet tët tët tët new ja ci cël ma xam la yem <laughs> bëri bay bëgg dee kaar kaar sunu borom mu ne asa xëy na booy def nii xëy na booy def nii booy julli ca waxtu wa booy julli ca waxtu wa di julli fajar gu mel nii bu guddee bu nit ñi tile tëddee nga mas tuuti ay rakka yàlla dana la dekkal dana la dekkal maqaama mahmuda allahu akbar maqaama mahmuda ndeysaan sama góor ga waaw bàyyi mahmadan bu mu woowee téléphone ma ne koo kan la mu ni ma maqaaman mahmuda ma xam ne bàyyi mahmudan la ndeysaan mooy bàyyi Sëriñ Sekk <laughs> cee te te mas naa koo gane ji ndeysaan keroog waxtaanuñ ba ni ma ñibbi ndax dafa ma doon tegal samay kaset ma ne ko waaw <laughs> ndekete daawut ñaari ngeen baal ma ñaari ñaari rajo ñaari rajo la wut nee bu bii paane buñ koy defari bii bii remplacé ko waaw Serigne Seck indil ko kaset yi waaye bu ma ñëwee bu daf may tegal benn ni ma li nga wax yaa wax lii ma ne waaw maa wax lii de mu mu tegaat beneen maanaam <laughs> au lieu mu bàyyi fa cachet de ñu waxtaan maak moom déedéet dama doon tegal samay cachet ndeysaan waaw maqaman ba moo ñëwee ci laaj ji rek ndeysaan sama xel dem ci maqaman mahmudan yàlla na ko yàlla dekkal moom tamit maqaman mahmudan ji muy dig ñi ñiy julli ca waxtu amin mbokk yi ginnaaw jokkaloo googu am te li ko lal nekk al imaan benn ñaaral ba nekk al zikr mu ñëw ci ñetteel bi mooy al xubbu allahu akbar bëgg al xubbu bayna naasi wallah bëgg diggante nit ñi yàlla ndeke nit dafa war a bëgg yàlla ndax yàlla moom bëgg ko waaw ndax yàlla bëgg ko euh, benn téere boo xam ne benn anglais ko bind tudde ko falsafatu diin téere boobu daf ca wax waa jaa ngi tudd defe naa Edouard su ma jumut mu ne inna kalimatal islaami maanaaha al isaanu li iradatillah nee baatub lislaam maanaam buñ ko déggee mooy koo xam ni ma ngay tàmbalee nangu ommatu ci coobare yàlla yi mu tëral nee mu jàppe yàlla àttekat boo xam ne du jël àq jàmbur du jum nee na looloo koy dekkal bi mu nekkee ci àdduna dekkit mu jóge ci bew mu ne waaye loolu du melaw rekk euh, bu ñuy woote ci nit te nekkul ci moom mu ne te loolu dañu naan la diw ab jullit la bu ñàkkee loolu rekk bokkatul te nee na loolu war naa feeñ ci képp koo xam ne ki dangaa yar sa bakkan yar sa ruux mbokk yi xubbul insaani lillah bëgg goo xam ne nit a ko bëgg yàlla yàlla na bëgg yàlla yàlla bëgg yàlla nee na nan ko gënal suñuy baay euh, nan nanu gënal suñuy baay loolu laa bëgg a wax nee na nanu gënal suñuy mbokk yàlla nanu gënal suñuy jabar jigéen ñi na leen yàlla gënal seeni jëkkër nanu yàlla gënal wàccal li yépp képp ko sant sàll foo mën a nekk nanu yàlla gënal Sénégal yépp te gënal nu africain yépp qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuhaa wa tijaara taxsawna kasaadahaa wa masaakina tardawnahaa ahabu ilay ahabu ilaykum min allaahi wa rasuulih wa jihaadin fi sabiili fatarabbasuu hattaa ya'tiya allaahu bi amrih wallaahu laa yahdil qawma alfaasiqiin suur tawba la ko yàlla wax aaya 24 yàlla nee bu fekkee seen bàyyee ma leen gënal <laughs> bu fekkee seen bàyyee ma leen gënal takk leen seeni bagage bu fekkee seen doom yee ma leen gënal bu fekkee seen mbokk yee ma leen gënal bu fekkee seen jabar yee ma leen gënal bu fekkee seen famille bi yépp ma leen gënal bu fekkee seen alal yi am na lu ma moo ma leen gënal bu fekkee seen commerce bi moo ma leen gënal bu fekkee seen seen dëkkuwaay yi nga xam ne karo la ca kaw ba ca suuf tar daw na xaam moo ma leen gënal takk leen seeni bagage te xam ne maa ngi ñëw mbokk yi nanu yàlla gënal sunu baay baay mbay sàll mëlati da ca càlle na ma ko yàlla gënal nanu yàlla gënal sunu doom yi gënal nu sunu mbokk yi gënal nu sunu jabar yi waaw jigéen ñi yàlla gënal leen seen jëkkër yi waaye gënal ñu mbokk gépp nag nanu yàlla gënal sunu alal waaye nanu yàlla gënal sunu kër yi loo ko mooy rek yàlla daf ñuy tuddee faasiquuna te baa ulul baaxut wallaahu laa yahdi qawmal faasiqiin te mooy ñi ne ci penc mi te yii am ci lu leen gënal yàlla tabaaraka wa taala yàlla na nu yii gënal yàlla na nu yàlla gënal yii kon ngeen baal ma mbokk yi bëgg yàlla yaa llazina amanu man yartadda minkum an diinihi fa sawfa yati laahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuuna allahu akbar yàlla nee na bu ngeen murtatee bu ngeen jógee ci arme bi bu ngeen déserté danaa fi indi ñoo xam ne danaa leen fi jële indi fi ñoo xam ne dañ may bëgg ma bëgg leen allahu akbar mu indi fu ñoo xam ne dañuy bëggante ma ak ñoom ñi la bëgg nu ñuy mel ne dañuy woyof ci jullit yi am fulla ci kanam yéefar yi foo leen fekk ñuy kër këri ci yoonu yàlla ku leen xas ñu nangu mbokk yi teg leen seen baaram foofu suratul maida aya 14 waaye maa ngi ci suratul xujuraat aya quinze maa ngi ci euh, suma lam yartaabu maa ngi ci ñetteel bi te mooy alxubb bayna naasi wallahi subhanahu wa taala yal nañu yàlla mooy nu dund ba tabarkàlla noppalu gi jeex congé bi jeex ñu del siwaat ci jataay yi waaw fekk koor gi dugg wala mu dugg si mbaa mu jege yal yàlla sàmm ba booba te ñu weesu ko ñu ngi jéggulu soxna yi di jéggulu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër jërëjëf ki nekkoon ci wàllu xarala bi moo di seen mbokk Adja ngeen àndoon tafsir beeg seen mbokk Alioune Sall yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu